appuyer rek mun na régler problème bi yëpp loolu mooy li nga xam ne moo ci nekk. kon nag ñoo ngi leen di baalu ak di leen ñaanal jàmm bu fekkee ni ay laaj yoo xam ni am na en tamsil amul ka kuy laaj dara alhamdulilah léegi nag moo ci leen jabarkat yi bindkat bee ci gën a gaaw la parce que moom xool moo gën a jege alquran waaye moom moo gën a lubbee ñëpp parce que ñeneen ci des sax di nga xam ne kii xërëmkat mais bu dee kii bind da ngay foog ni kii nit yàlla la. mais que triant la rek amul benn njëriñ nawet bi bàyyi ko bu baax moom la ñuy def ci biir gàllaaj yi moom la ñuy def ci biir ndomb yi affaire yu mel noonu ah xoolal bi kii borom bu Dalam waxee ñu ngi ci xayam ah borom bakkan yu bëri yi ah waaw xoolal bi dafa am koo kursi dalam sax moom kooku am na koo xam ne waaw loolu yëpp ay caaxaan la. non a jege li